فلا يوحى سبغ فتريمه وحزيمي فمن يعزم مولدا خير البراء يا أحمد فكشهيد شهيدا بدرا بخير روامي فكل من أنفخ في مولدي musharrafi maalam bi xay richarafi walaw bi xadd ridirhami saadu rabbiya bil muxtaari sumawin allah yu waajiyani bil maq bi makkaaru saadu rabbiya bil muxtaari sumawin anta dafi an waadi yow maxyaaru amma boo bakri wa bi usayninaar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 maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim xayril maghdubi alayhim wala ddaalin allahu akbar sami'a allahu liman hamidah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 wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi thawi ridwani wattamkin allahu akbar alhamdulillahi alladi jacala yowma alciid yowma tawsiatin wa tafrihi walitlaq wasalaatu wasalaamu ala man axrajana min zulmati aljahli wa dirki wannifaq walimlaaq sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi sawil wifaaq wa ala man tabiahum bi ihsaanin fi jumlati l afaq kon nag ñu tënk tuuti ci li ñu doon wax ci wolof rek mu gàtt ñu bàyyi baalonte àq kon nag ñi ngi tàmbalee ci suñu wax tey jëmale ko ci li ñuy wax jëf aw yiw loolu mooy waxtaanu tey jëm ci li ñuy wax jëf aw yiw maanaam fi'lul xayraat xam ngeen ni jamono yu ne baax na waaye jamono ji ñu nekk ci la gëne mooy jëf aw yiw lu mel ni fan yi nga xam ni ci la jiitu ba tey jii di fukki fan yi nga xam ni ku ne xam na ni mu mel ci ay yiw yu baree baree bari kon nag mbokki jullit yi ñu ngi leen di soññi di soññit sunu bopp ci lépp lu baax ci ab jullit war koy fàggu waxtu wu ne dafa mel ni jamono dafa naqari lool te xat ci daw jëm ci lu baax ni ñu koy waxee sax léegi dafa mel ni lu baax des koy maye walla ñu wër di ko joxe tam jafe lool te safaan bi gis ngeen ni dañ koy jaay te mu gën a siiw te gën a bari lool kon mbokki jullit yi nañu bàyyi xel lool def lu baax def lu baax nag lislaam daf ko gërëm lool yonante bi alayhi wa it santaane ko bu baax sunu sëriñ Seex Ahmadu Bamba it santaane ko bu baax te bari na ay njariñ lool te mooy def lu baax lu mel ni dimbalante mooy te mooy eh, aanatul fuqaraa mooy dimbalante ci biir la ci jiitu mooy dimbalante ci biir ñu ñàkk ñi képp koo xam ne gis nga sa moroom te nga tane ko ci loo ko mën a dimbalee nanga ko dimbali lu mel ni it nasratul maslum mooy dimbali koo xam ni dañ koo tooñ ba pare musaadatul marit ba pare dimbali koo xam ni dafa feebar nga dimbali ko loolu bokk na ci def lu baax kafaalatul yatim mooy dimbali ay jirim mooy foo fekk ab jirim nga di ko taxawu sillatu rahim te mooy dox ak mbokk loolu yonente bi alayhi wa salaam wax na njariñ yu baree baree bari yu ci nekk islaahu bayna naasi ak yëwénal diggante yi mooy diggante yoo xam ni dafa am ak yàqute nga jóg sol sa tànk defar ko ba mu baax waaye xam ngeen liñ miin ci jamono jii ñu nekk mooy taqale ay diggante mooy dangay gis ñoo xam ni seenug ànd du neex ñenn ñi dañuy jóg di sos ak di ko yàq te loolu gënul la ngay demee di yàq di ca am bakkaar boo xam ni xamoo nu mu toll dafay mel ni nga jóg def ko islaaxu booba mooy gën te mooy fexe ba seen diggante rafet bokk na ci it ba tey itaamu taam mooy fexe ba di jël aw ñam di ko joxe di ko joxe di nañu fonk lool jëm aw ñam di ko joxe moo tax ku baax ka waxoon ni ku bëgg a dab gaa yu baax ya da ngay nangoo joxe ndab mooy dab dabe boo bëggee rek di dab bokk ci nit ñu baax ñi ëllëg na fonk joxe aw ñam bokk na ci it rafetal xusnul jiwaar yi mooy rafetal ci ab dëkkandoo mooy fexe ba suñuy jëkkandoo ñun ñëpp ñuy rafetantal bokk na ci it berul waalidayni loolu moom sunu borom daf ko fonk lool ba tudd na ko lu baree baree bare ci alquranul karim kon nag nañu xam ni bi ci gën a siiw nag te ñu war koo gën a yittewoo mooy al infaaqu fi sabilillah moo ci gën mooy jël sa alal di ko def ci yoonu yàlla moo xam te moo gën a yaatu ci mbooleem ji ñuy wax lu mel ni lii nga xam ni dana am ci dëkk bi lool te ñu jëb ko képp koo xam ne suñu borom may na la nga am ci kàttan te xam ngeen ni ñu ngi jëm ci nawet te ku ne xam na ni nawet ñi nga xam ne suñu loxo dafa jëbul seen ginnaaw day fay mel ni dañuy nekk ci njàqare lool kon ku yàlla may tey nga nekk ci dëkk bi te am kàttan na ngay bàyyi xel mukk ni man ngaa tëdd ci néeg boo xam ni mucc nga ci taw lool waaye sa mbokkum taalibe sa mbokkum jullit mu la soriwul mi ngi am ay naqar ak i jafe-jafe saabu xiinee kon nag nañuy bàyyi xel bu baax te xam ni li ñuy wax sancaan yi te mooy li wër Tuubaa te sori lool jafe-jafe bari na fa lool boo demee dafa mel ni lu wàllu jëm ci wàllum ndox amu fa lu mel ni jëm ci wàllum kuraayit jafe na fa lu jëm ci wàllu hôpital it wala fu ñuy fajoo jafe na fa te ñoom ñëpp dara indiwu leen fii lu dul woote Serigne tubaab yi nga xam ni moo taxoon mu woote ñëpp ñëw fii kon nag mbokk yi nga xam ne yàlla mane na leen gan na ngeen di bàyyi xel lool lu mel noonu lu mel ni di defar ay yoon jëf ju baax ju rëy la ju yonante bi gërëm lu mel ni bënnub teen waaye xam ngeen nib teen moom yombut a bënn fii waaye li ñu wax rek mooy ku am darajey bënnub teen war ngaa mën a am darajey xëttal nit ay tiwoo ba mu dem ci këram loolu it bu kenn xeeb nañ koy bàyyi lu mel ni fajukaay nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax bu kenn wax nag ni mënuma awma mukk ci àdduna amul benn jaam buy dox ci àdduna te yàlla jëful ci yow nga mën a dimbulee sa morom moo xam da nga koy dimbulee ci alal wala nga di ko dimbalee ci sam xel wala nga di ko dimbalee ci sa doole te loolu néewaa na nga gis jëmm ju ko ñàkk mooy fokk nga ñett yooyu daje ci yow benn nga am alal joo mën a def soo ko mënul it nga am xam-xam soo ko mënul di nga am am xel soo ko amul it di nga am li ñuy wax doole kon nag lu mu tuuti tuuti bul ko xeeb jéem koo def ngir nga jéemal ko ca barab ba nga xam ni ku fa dem dara du fa doy fa man yaamal misqaala sarratin xayran yara kon def lu baax lu am solo la te bari ay njariñ lool te day mott li gëm yàlla bu fekkee yaa ngi bëgg lu baax di ci gaw di góor góorlu foo mën a toll di ci daw moo xam lu baax lu mu mën di doon ci yooyu yëpp ñu wax dana waral sa gëm yàlla di gën a dëgër lool bu fekkonte ni ku ne ca la nga nekk da nga cey jéem a dimbali sa moroomum jullit jafe-jafe yi am yëpp dana mën a manqué lool ndax ku xam ni li ñu wax su fekkente ni doo nekk ku ñuy laaj doo jàpp ni jafe-jafe am na ci dëkk bi waaye laajkat yi li tax ñu di laaj mooy ñàkk gu metti lool te ñàkk googu it warees na leen cee mën a dimbali ba ñu am lu ñu jàppandi lu ñuy wax ay sut lu ñuy suturloo di xëy di man di daan seen doole ngir ñu mën a faj seen aajo xam ngeen ni sax lislaam lim tuddee sàkkaat mooy fexe ba ñàkk jafe lool fexe ba xeex li ñuy wax ñàkk te loolu yëpp nag mi ngi ko amee ci ku tane sa moroom nga di ko dimbali bu baax a baax kon nag nañu bàyyi loolu te bennoo tey ji yéenante jàmm te góor góorlu ci lépp loo xam ne sëriñ bi daf koo bëgg te daf koo bëgg daf koo gërëm te mooy jaamu yàlla ndax fexe ba ni mu koy waxee su ëllëgee foo taxaw wane ni yow kat yaay ki gënub sëriñ war ngaa mën a bàyyi xel ba sëriñ biit bu la xoolee ëllëg wan la ni yaa yaay taalibe bi gën ndax daan na wax ni na ngeen fexe fexe ba man dey bu ma am li nga xam ni dal seen digganteeg yéen mooy ku ne xam na ni mus naa dajale ñu baree bari moom sëriñ bi ci mag ñi wax leen ni leen ndax yéen ñii fi nekk gërëm ngeen ma ñu ne ko waaw mu ni leen ndax xam ngeen ni yonante bi gërëm na ma ñu ni ko waaw mu ni ndax suñu boroom gërëm na ma ñu ni ko waaw mu ni xam ngeen niit gërëm gërëm ngeen ma ñu ne ko waaw mu ni ñoo ket taxaw ni leen na ngeen fexe yéen ba ma gërëm leen kon nag loolu la ab taalibe war a xintuwoo foo man di nekk fexeel ba fexe ba sëriñ bi gërëm la di sant ñëpp di jël nuyoo bépp di ko teg ci loxo yi nga xam ni ñoo fi teew te jóge fu baree bari ci xeet yu bokkul ngir jaamu si fi yàlla yàlla na nu yàlla nangul jaamu yàlla gi yal na nu yàlla defal lépp loo xam ni wax na ko ci ku rayum xar ñu am ko ca te bañ a am ndawal waaye am ca sunna su yonante bi alayhi salaatu salaam ni mu ko waxee woon rek Aboubacar ni ko na nga xam ni day nit ñu ne am nañ aw ak ak ak feet waaye xamal ni ñun lii mooy suñu feet ñoo ngi ziar bu baax di jéggulu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 gën noo gàtt ndoog tawféexi sëriñ bi